وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم كيف كو خامني يلا سونو بروم ديفنا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 war nga fexe ba mel melakan wo ku la gis xémem sëriñ bi xam ni sëb sëriñ kat tek na la ci yoon yow mi nak yàlla defal na la tawféexi lool ku tambali wul do yagalé ne ni nga def mooy cosaanal yoon moy fek fu dara nekkul nga fak ko sant fa muy métti nga diko muñ ba lépp fekk si la fa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 séddale cër ngir saw melokaan ak sa jëf ne liggéey bi rafet na doxin bi rafet na amu ci dara lu ñu sikk kon sant nañ bu baax te loolu doyul sëkk kon ñu ngi nuyu waa kees gépp di siyaar sëñ Saliou Touré mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba te Cheikh Abdoulaye Mbacke tegoon ko fi ba nëgë ni muy magam lislaam